Total Buzz euh, chaque samedi ñoomati mbégteeg ca waxte di feggoog yéen sur Senweb TV am internet yi ñu ngi leen di nuyu euh, di leen di ziar bu baax a baax dellu di leen ci dalal jàmm tey nag ca diwaanu Yoff euh, la ñu koy dal di doore addu si lu doy la nga xamante ne ni moom moo fa am ni ki bés yi la ñu génn brigade gendarmerie bu Foire nag jotees na sax defeere ni kaa juma gële ñu weesu lu tolloog ñaari mécanicien ak ñaari nappkat ngir wàllum séquestration ak détournement de mineur de 13 ans toppandi ci ab viol collectif ay atam toll si fukk ak ñett moom xale bu jigéen ba euh, di SS dafa dund viol collectif toppandi ci ay tokku euh, moom moomee nag euh, dañu ko dal di rek yóbbu si fa nga xamante ne ni benn ba néeg la bi nga xamante ne ni mu ngi nekkee ca diwaanu Yoff ngàpparu daal koy takk ba mu ne ngodd laata ñu koy violé di koy awlante ñoom ña nga xamante ne ni ñoom ñoo ko def def euh, mbir mi ni mel euh, mécanicien bi di a euh, sec ak nappkat bi M Sarr dañoo profité wu nag ci tëxataayu xale bi ngir ne ko daal na leen gunge si seen xarit bile di M Sarr si seen xarit bi bile di benn duur autant pour moi di ab nappkat ak ab di rek ab mécanicien bu ñu sukkandikoo si victime bi mbir yi mi ngi amee nag ci kanamu ña nga xamante ni ñoo la gunge woon nga xamante xamante ni ñoo di ASEC ak M Sarr yu euh, ko doon viol yi ba ñu ko tëddeewee xale yu góor ya euh, dañoo tëkku euh, xale bu jigéen boobee di ab mineur ne dañuy tasaare vidéo wam si bu leen rek boolewee si lu ñu ko def waaye nag tëkku yooyee teewul xale ba ba bu ñibbee lépp la nettali waajuram bu jigéen bi nga xamante ne naka noonu la ànd ak doomam ja dal di dem ca fa nga xamante ni moom moo di brigade bu Foire dal di déposer ab euh, plainte euh, si lu ñeel wàllum enquête bi gendarme yi dañoo euh, réquisitionné service yu benn gynécologue bi nga xamante ni résultat yu examen yi dañu dal di dëggal ne tëddee nañu doomam jooje gannaaw loolee la takk der yi wàcce ca yoo dal di teg loxo ñeenti xale yu góor yi ba ñu leen laajee dañoo tuumal xale bu jigéen bi ne daal dafay jaayandi boppam nag noonee nag li ni mel teewul ñoom ñëpp ñu dal di leen di defeere ca parquet bu Ndakaaru lépp ni ki ajjuma bi la ñu weesu la dal di xew ñu àddu ci mbirum euh, Jérôme Bandiaky euh, xibaar bu yees euh, da dinay tukkee ci mbirum rakk bu góoru ancien ministre régime Macky sàll bu ñu teg loxo laata niki talaata gi la ñu daal di weesu ca këram ak i ay ngànnaay ya nga xamante ne ni moom la ñu fa jotee sa fekk bokk na ci ñetti pistolet ak ay munitions division des investigations criminelles jot na boucler nag dossier bi bu ñu sukkandikoo ci ab source autorité Lisée naka nu ne est-ce naan ko Papis alxames gile la ñu wax ne si la ñu ko déféré euh, si la ñu ko présenté àttekatu instruction bi nga xamante ne ni euh, moom moo yor cabinet bu euh, njëkk ba tey ci xibaar bi ni mel benn source Seneweb moom moo jot xam le ni sàkkoor yi ka daañu ko déféré alxames gi ñu weesu yema woon novembre moom moomee di rakkub ancien ministre bi di diw di Doudou ñoo ngi ko ko tegandi loxo si lu ñeel euh, enquête bi nga xamante ne ni moom moo tax euh, ñu te ki nga kile di Jérôme euh, Bandiaky bu ñu soupçonné ni dafa soobu si ay massacre ay manifestant diggante atub 2021 ak mille 2023 dig bu yor dossier bi saisir na nag lu tolloog ñetti arme à feu ay cartouche ak ay gilet pare si ba ñuy amal nag perquisition bi si appartement wu Sakori ca diwaanu Ouest Foire ba mu janook ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo di enquêteurs yi moom moomee euh, di euh, ndeyu mbill gi nag euh, daa xam le ni ñaar si ngànnaay ya nga xamante ne ni moom la ñu fekk ca këram bokk ci benn ak ab permis bu nga xamante ne ni dafa expiré maanaam dafa jeex waajuram bu góor bi nga xamante ne ni génn na àdduna moom moo ko dal di moom source a bi nga xamante ne moo biral xibaar bi bés yi la dal di génn xamle na ni moom moomee bu ñu sukkandikoo si lu doomam ji dal di xamle ab douanier la woon Sakorika nag la Jérôme Bandiaky dal di désigné ne moo ko jaay benn si fetal ya nga xamante ne ni moom la ñu fekk ca fa nga xamante ne ni moo di dëkkuwaayam ba tey ci mbirum Papis moomee lay deseeg yéen turam dëgg di Sacoly Ka moom moomee nag jotees na fanaan guddeem bu njëkk ci kaso gi moom rakk ba ancien ministre bi lee di Doudou Ka dañu ko dal di inculpé ba noppi daal di koy placé sous mandat de dépôt yëpp ni ki alxames gi la ñu weetu euh, instruction bu cabinet bu njëkk bi nga xamante ne ni moom moo ko euh, moo yor dossier bi nag moom moo ko euh, nag dal di placé sous mandat de dépôt ngir wàllum yorub ngànnaay te amu ci autorisation administrative bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu ca jot tatan moom moomee nag talaata gi la ñu weesu la ko jëli woon këram ba nga xamante ne ni ay ngànnaay dañu ko fa fekk bokk na ci ñetti pistolet ak i ay munitions ya nga xamante Euh, moom lañ ko euh, fekkee ñu àddu ci euh, mbirum Moustapha Diakhaté ni ki alxames gi la ñu weesoo la ñu ko doon àtte ca tribunal des flagrants délits bu Ndakaaru ngir kàddu yi nga xamante ne ni euh, jotees na koo yëkki jëmale ci jëriñ bu njëkk ba rawatina ñi nga xamante ne ni ñoo leen votel di kàddu yoo xamante ni dañoo gis ne tegginewul tax yoon daal di koy euh, teg loxo naka noonee nag tribunal des flagrants délits bu Ndakaaru daal dinay déclaré Moustapha Diakhaté moomee coupable ci ay délits yu insult jarale ko nag ci ci euh, jumtukaay yoo xarale yi ak nag euh, li nga xamante ni moo di euh, discours contraire au bon mœurs naka noon nii nag ancien député bi daal dinañ koy daan lu tollook ñaari weeru kaso lëmb leader euh, politique yi nga xamante ne ni ñoo faree ci kujje gi euh, ñoom ñoo ne nag fas yéene wu ñoo seen i yoxoo si euh, mbirum arrestation kile di Moustapha jaxate bi gannaaw Bougane Gueye Dany Thierno Bocoum moom moo ko dal di felu dal di réagir ci page XM nag moom moo noo Bocoum dafa dal di def benn poste ngir exiger daal ngir ñu libérer immédiatement ancien président au groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar bi ndamu ba Pastef bi du ngannaay ngir nekk di dal liberté d'expression bi ci suñu réew mi lee di euh, Sénégal Moustapha Diakhaté dañu ko war a libérer euh, sans délai ni condition mu daal di koy xamle moom njiital mouvement Agir bi ñu fàttali leen ne Moustapha Diakhaté ñoo ngi ko dal di nag euh, jotoon a placé en garde à vue àjjuma bële ca gannaaw yemoo woon nag ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru novembre gannaaw ba ko enquêteur yu division de la cybercriminalité teewloo ngir li nga xamante ni moo di wàllum insulte système informatique jëmale eh, ci ab groupe di caractérisé wu si origine nationale ñu garde ko à vue ngir wàllum diffusion de fausses nouvelle si lu ñeel eh, mbirum eh, ministre bu génn àdduna bile di Mamadou Moustapha Ba taskatu xabaar bile di Adama Gaye mënees na nag compter si soutien wu coalition gox yu bees gannaaw ba ñu wëree nag commissariat yu si Ndakaaru yëpp ngir apporter ko suñu soutien de principe principe euh, dañu dal di indiqué euh, commissariat centrale laata nag bu Médina ca commissariat spéciale bu port lañu ko fekk euh, mënuñu ko woon gis nag ndaxte dikk da ko tere ay visite yu dul rek avocat wam képp la mu nee sa gis ñoo ngi woo autorités yi ngir ñu traité nag bile mbir ak rigueur ak équité si respect ak yelleefu ki nga xamante ne moom moo di nag doomu aadama gi waaye itam dal di respecter ay principes fondamentaux yu état de droit bi ab démocratie bu euh, dëgër mënula euh, prospérer sans euh, protection ay liberté fondamentale di bu informer ak exprimer wu li ni mel waa coalition bi ñoom ñoo ko xamle tey invité nag di fàttali ne Adama Gaye dafa mës nekk ab baat ba nga xamante ne ni baat bu critique la te indépendante di œuvrer sans relâche ngir dénoncer wàllu injustice bi tey euh, défendre tamit euh, transparence bi ci suñu société bi contribution wam ci débat public bi euh, doonul lu ñu mënees xayma coalition gox yu bees mi ngi feddali engagement wam ngir dal di défendre liberté wu presse bi ay lanceur d'alerte ak i ay taskatu xabaar yu ñeme leeralal opinion publique bi dañuy desandi fermement mobilisé ngir ak ak yëleef yile ñu jëlee ci sacrifice sacrifice yu tar ñu daal koy aar bu baax a baax ñu assuré ko ñoom ñoo ñëwee ba tey bokk ci coalition gox yu bees. Madou ci mbirum Amir Abo moom homme d'affaires boobee turam dëgg di Abo Mbacké placé nañu ko sous mandat de dépôt ngir wàllum escroquerie ak blanchiment de capitaux ni ki altine gile ñu weesu la libération jotoon na ni enquêteurs ca dikk yu yor dossier bi def nañu découverte yu curieuse si njiital stamp. Euh, Stam Global Business bi euh, moom moomee nag euh, dafa yor ab passeport diplomatique sénégalais di souligner ni document boobee ñoo ngi ko jox fukki fan ak ñeent ci weeru mars bi ñu weesu ba fukki fan desee nag euh, si tànneefal njiital réew mi te ba ñuy amal benn perquisition ca këru Amir Abo ca Sicap Foire ba tey bu ñu sukkandikoo ci xibaar yu bàyyeeko libération enquêteurs yi jëlee nañu fa ay autocollants yu ñu marqué si kàllaamay Euh, anglais euh, son excellence Amira Bo conseiller spécial de MBS initial yooyu nag di MBS daf ñu yóbbu ci prince héritier wu Arabie euh, Saoudite bi Mohammed Ben Salman donte homme d'affaires bi dafa weddi woon nag li nga xamante ni moo di tuuma yu ñu formuler laata boobu les curieuses découvertes yi nga xam ne da doon présenté wu un conseiller du puissant dirigeant saoudien Amir Abo ñetti plainte la ñu dal di gàccandi ci ndodd itam euh, benn soxna bu ñuy wax euh, MD Tall mi ngi koy toppee lu tolloog euh, téeméeri million ci suñuy koppar architecte bi lee di Pierre bi Atepa mu ngi koy toppee benn impayé wu ñeenti téeméeri million ci suñuy koppar waa groupe Gelongal ngir ko ñel di koy reproché ne da ko commandé benn film te nag demul si buuwu boobule projet Euh, ba tey euh, si wàllum justice euh, Cheikh Thiam di ambassadeur placé nañu ko moom it en garde à vue ca division spéciale de cybersécurité bu police nationale naka ne nag politicien bi ñu ngi koy toppee biral ay xibaar ya nga xamante ne ni dara amu ca soo métuwulee nag nit ki talaata gi la ñu weesu la ñu doon nag la am nag xel ñaar si dañ koy defeere am déet lu ñu jot amal si nag talaata joojee ci fàttali moom moomee di Cheikh Thiam dafa jëloon ay tuuma yu garaaw sax daal di koy annoncé euh, nag di benn éventuel euh, série wu assassinat par emprisonnement naka noonee le procureur de la République daal di actionné waa DSC. addu ci mbirum euh, Samuel Sarr ñu daal di koy teg loxo ajjuma bële ca gannaaw ca AIBD fekk mu jógee ko woon ca Dubaï ba mu nekkoon Samuel mi ngi en garde ca section de recherche bu Colobane directeur général West African Energy bi euh, benn euh, di benn projet central euh, électrique ñoo ngi koy toppee wàllum abus de biens sociaux préjudice bi ñoo ngi ko xayma si lu tollook ñaari milliards ci suñuy koppar gannaaw ku nekk jamono ji directeur général u Sénélec Pape Toby Gaye observateur annoncé na yeneen audition di bu directeur général de la société industrie commerce Sénico di Abdoulaye Dia représentant au directeur général lu Kaafrik Abdou Karim Diop ñoom ñoo ñee eh, ni ki altine gi dañu weesu la ñu leen teewloo ci section de recherche bu ñuy xarandi eh, bu ñu doon xarandi talaata eh, di nag sa ëllëg sa ancien directeur u Sénélec ba di Papa Mademba bi tey si kanamu ña nga xamante ne ni ñoom ñoo di enquêteurs yi même source bi jotoon na préciser ni audition homme d'affaires bi le di Arouna Dia tamit programme nañu ko mu nekk jamono ji ca Ouagadougou capitale Burkina Faso Arona Dia moomee mi ngi waroon a ñibbi si Ndakaaru ci ndoxtalu semaine bi la ñuy génn euh, maanaam euh, si altine gi la ñu weesu waaye nag nee nañ benn vol manqué euh, moom moo reporté woon li nga xamante ne ni moom moo di ñëwam bi Samuel Sarr jot na fanaan guddeem gu njëkk ci kaso gi moom moomee nag gannaaw ba mu defee objet wu ñaari retour de parquet ancien ministre de l'énergie bi euh, si jamono Abdoulaye Wade dañu ko inculpé ba noppi placé ko sous mandat de dépôt àttekatu instruction bu yor ñaareelu euh, cabinet bu tribunal bu grande instance hors classe bu Ndakaaru moo ko dóor mandat de dépôt ñoo ngi koy toppee abus de euh, biens sociaux bu ñu sukkandikoo si ki nga xamante ne nii moom moo di avocat wam monsieur Sarr ajjuma euh, bi la ñu weesu la ñu ko daal di tegee loxo ca aéroport international Blaise Diagne euh, bu Diass euh, police de l'air et des frontières moom moo ko jàpp nag gannaaw benn opposition de sortir du territoire bi nga xamante ni gendarme yu section de recherche bu Ndakaaru ñoom ñoo ko lancé dañu ko lim nag si benn présumé détournement si lu tollook juróom-ñetti milliards ci suñuy koppar ba tey ci xibaar bi ni mel ancien ministre euh, de l'énergie bi ci euh, régime Abdoulaye Wade bi yóbbu nañ ko ci kaso gi alxames ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre ci mbir mu koy wutaleeg euh, collaborateur bi lee di Moustapha Ndiaye ci ab communiqué bu ñu biral avocat yam yi nag daal dinañ constitué wu ci boobu les dossiers ngir assurer défense am naka noonee nag la ñu defee seen plaidoirie yi suñu client bi di monsieur Samuel Sarr daal dinañ koy placer sous mandat de dépôt teewee ay bés yu bëri en garde à vue ak euh, nag euh, retour de parquet ñu ngi yëgal opinion nationale bi internationale bi ne nag amul benn mbirum détournement wa ilaa rek malversation euh, bi nga xamante ne ni mun nañ ko rek firndeel ci boobule dossier monsieur Samuel Sarr ñu ngi koy toppee li nga xamante ne ni moo di délit wu abus de biens sociaux si ay base ya nga xamante ne ni dañu erroné ñu daal koy préciser ñoom euh, avocat wam yi lee di maître euh, Baboucar Cissé Cheikh Ahmadou njaay ak euh, John War Soumaré collectifu ay avocat yu défense bi daal dinañuy xamle tamit ne si ba ñuy amal enquête bi ki lee di Samuel sar de produire na benn dossier ba nga xamante ne nii mi ngi am lu tollook fanweer ak juróom-ñeenti pièces yuy firndeel gestion wam bu scène bi te rigoureuse si société bi nga xamante ni moom moo di E West African énergie eh, ni ne mel nag eh, nee na eh, dara mënee su ko dindi ñoo ngi xamle ne suñu client bi dañ ko yóbbu ci kaso gi ngir ay raison ya nga xamante ne ni daal politique kese moom moo ko làmboo ñu daal di koy xamle tey naan daal dafa démarqué wu carrément si li nga xamante ni moo di gestion wam si société bi nga xamante ni moo di West African Energy bi nga xamante ni si la ko porté plainte ba nekk euh, rek euh, ku ko euh, dal di teg loxo bu ñu sukkandikoo nag ba tey si ñoom ab commande politique la moom la ñu dal di jëfee ngir yóbbu ci kaso gi ki nga xamante ne ni moom moo di Samuel Sarr naka noonu ne nag nee nañu yëg nañu ne ab direction général bu bees daa ñu ko teg ci semaine buy ñëw foofee ca West African Energy ñu xamle ko ba tey ñoom avocat yi taskatu xabaar bile di Madiambal Diagne daal dinay décider retirer euh, plaintam bi contre Dame Mbodj sama avocat maître Baboucar Cissé dina déposer benn acte de désistement euh, bu euh, procédure pénale dal di bu ma initié woon jëmale ko ci ki nga xamante ni moo di monsieur Dame Mbodj syndicaliste ngir wàllum diffamation mu dal di koy yëgle ci benn note bu mu daal di biral daal dina cay toftal tamit ne procès bi ñoo ngi ko jàpp alxames ñaar fukki fukki fan ak juróom-ñett ci weer novembre atum 2024 ci tribunal correctionnel bu Ndakaaru désistement d'instance bi lee wax na jeexal action publique bi loolee la jotoon a xamle si note ba mu biraloon addu jëmale si lu ñeel juróom-ñett fukkeelu anniversaire massacre Thiaroye bi ba ñuy amal conseil des ministre niki àllarba bi la ñu weesu yema woon nag ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre njiital réew mi annoncé na ni dina présider dibeer di euh, niki ëllëg benn fan ci weeru décembre atub 2024 ci teewaayu euh, délégation étrangère yu bëri euh, cérémonie commémorative yu juróom-ñett fukkeelu anniversaire massacre tirailleurs sénégalais yi euh, ca diwaanu Thiaroy ci sujet boobee comité bu teg ngir boobule commémoration te nag historien bi di professeur Mamadou Diouf présidé ko dina amal benn jànnoog taskat taskatu xabaar yi euh, nag niki démb ci àjjuma ji la woon 29 novembre 2024 euh, lu ko dalee 9h ba 10h ñu ngi ko doon amalee ca salle de conférence bu primature bi dixième étage ndaje boobee nag la ko wundu woon moo di nag def benn état de lieux si li nga xamante ne ni moo di euh, yu commémoration beeg résultat provisoire yu mission historien bi documentaliste yi archiviste yi bu dem ba novembre ca réewum France Emmanuel Macron du ñëw Sénégal ngir lu ñeel juróom-ñett fukki la euh, commémoration euh, massacre Thiaroye bi njiital réew bu France bi euh, chef mu diplomatie bi di Jean-Noël Barrot moom moo koy dal di représenté mu nekk tournée ci ay réew africain yu bëri ministre français des affaires étrangères bi nag dëggal na ni dina représenté réewam si bu ñuy amal commémoration yu juróom-ñett fukkeelu anniversaire xew-xewu Thiaroye yi naka noonu nag la ne moom moment yu fàttaliku lay doon te nag ngir suñu réew mi eh, moment wu introspection mu daal di koy xamle xew xew caaro yi nag mi ngi amoon eh, benn fan ci weeru décembre atuba 1944 ba ay troupe coloniale ak i ay gendarme français eh, tiré woon si ndigalu officier yu armée française bi ay tirailleur yu ñu daal di rapatrier gannaaw ba ñu leen battre si suufu drapeau français bi te ñu doon réclamer képp seeni arriéré journée euh, de solde jamono joojee nag autorité française yi euh, reconnaître nañu faatu ba fanweer ak juróomi doomi àddama waaye bu ñu sukkandikoo euh, ci ay historien limu ñi nga xamante ne ni ñoo di victime yi dëgg-dëgg mi ngi tolloon ci ay téeméeri tirailleurs yu bëri Jean-Noël Barrot dina dem tamit si yeneen réewu Afrique yu si mel ni Tchad ak ca diwaanu Éthiopie si lu ñeel ab visite bu visé assuré ni ñaari ñetti milliards euro wu engagement yu participants yi jël ci ab conférence euh, bu ñu doon euh, organiser ca Paris weeru avril ba xam ndax ñoo ngi ci euh, bu baax ñu dalal ko ca chaîne euh, France 2 euh, si lu ñeel euh, célébration juróom-ñett fukkeelu anniversaire massacre Thiaroye bi suñu njiital réew mi di Bassirou Diomaye Diakhar Faye laaj nañ ko tamit si lu ñeel présence armée française bi ci suñu réew mi la di Sénégal ba xam ndax en tant que français yéen a ngi envisager rek gis ñu si seen réew ak i ay char ay euh, ndaamaaru militaire ay euh, militaire yuy sol ay euh, tenue sénégalaise ab laaj la ndaxte nag ci plan historique bi France dafa daal di jël ay esclave yi nga xamante ne ni daf ko coloniser te nag daal dinay des ba xam ndax bu ngeen inversé rôle yi da ngeen daal di conserver très mal beneen armée ba nga xamante ne ni Chine Russie Euh, Sénégal wala yeneen i réew euh, danañu mën euh, rek am li nga xamante ne moo di ab base militaire ca France ba xam ndax loolee la tontu ki nga xamante ne ni moom moo di taskatu xabaar bi nga xamante ne ni mooy bu française bi mu gën ca xuus ki nga xamante ne ni moom moo dal di wutu Macky sal daal dina ca yokk ni amagul délai de rigueur bu dee France dafa war a dem danañu ko. annoncé ñi nga xamante ne ñoo di autorité euh, française yi euh, ñoom ñooñee danañu am primeuru euh, daal di koy annoncé ak tamit calendrier bi nga xamante ne ni moom la ñuy établir mu daal di koy leeral moom njiital réew mi ba Bassirou Diomaye Diakhar Faye lakk bu am bu yàggul dara ca marché centrale bu Thiès prétexte la ngir chef nguur gi Ousmane Sonko ngir mu daal di exiger benn évaluation programme de modernisation promotion et de gestion des marchés ñu naan ko euh, Promogem si gàttal euh, li ni si proposé dans les meilleurs délais benn plan d'action de mise en œuvre effective euh, bu attribution yu ñu conféré boobu les structures si waxtu bu ñuy xarandi nag mbir mi ni mel daal invité ministre de l'intérieur et de la sécurité publique si lëkkaloo ak yeneen i ministre compétent yeeg autorité administrative yeeg locale si mu mesure yu urgente euh, ngir euh, contrôle beeg wàllu mise en place sub dispositif protection civile adéquat bi euh, ñu yokk ko ci communiqué wu réunion hebdomadaire bu ñu doon amal ni ki àllarba bi la ñu weesu yema woon nag ñaar fukki fan nag juróom-ñaar ci weeru novembre ca palais de la république gannaaw loolee jëwriñ bu njëkk bi fàttali na solo bu département ministériel yi jox mise en œuvre diligente bu ay directive yu jógee ko ci conseil des ministres yi ak tamit conseil yeeg euh, réunion interministérielle yi ci cadre euh, gestion bu ñu accès ci euh, résultat yi ba tey ci mbirum Ousmane Sonko mu dem ci assemblée nationale am mu desandi ci primature bi Robert Bourgui moom giseewul nu yeneen figure yu société civile bi dal di gisee ci boobule laaj ancien conseiller politique franco-libanais bi di figure majeure Francafrique bokk yi gisine ak ña nga xamante ne ni dañu jàpp ne Ousmane sonk bopp liste Pastef bu jël législative yi ak téeméer ak euh, fanweeri siège ci téeméer ak euh, juróom-benn fukk ak juróom yi dafa war a jóge ko ci primature bi euh, ngir occuper perchoiru parlement bi bu ma jëwrin bu njëkk bi dal di laajoon laaj bi ni mel dama koy wax rekk ngir mu desandi ci bopp nguur gi te fal keneen ca pencum ndaw réew mi mu suggéré ko laata laata muy expliqué wu ne daal dafa jàpp ne travail effectif bi eh, si bopp nguur gi la eh, lëkkaloo seek ki nga xamante ne ni moo di eh, njiital réew mi résultat définitif yu élection législative yuñ doon amal 17 novembre bi ñu weesu daal dinañu koy xam conseil constitutionnel daal dinay dëggal àllarba bi la ñu weesu lu cour d'appel bu Dakar biral ni ki semaine bi ñu weesu si ba ñuy amal conseil des ministres ni ki àllarba gi njiital réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye yëgle na ni nag dina fixé par décret date euh, bu ñuy dal di ubbi euh, session bu njëkk ba assemblée nationale bu ñu fal bees dëppook euh, constitution bi lu tollook téeméer ak juróom benn fukk ak juróomi parlementaire ñooy siégé ci assemblée nationale parti au pouvoir bi Pastef moo am large majorité bi ak lu tollook téeméer ak fanweeri député fi mu ne nii c'est officiel euh, député yu bees yi danañu dal di installé wu euh, ni ki altine guy ñëw war a yem ak ñaari fan ci weeru décembre atub 2024 kii di Ousseynou Ly nag euh, di ministre bi nga xamante ne ni moom moo yor communication présidence de la république moom moo biral xibaar bi gannaaw proclamation officielle bi àllarba 27 novembre 2024 yu résultat définitif yu élection législative yu 17 novembre bi la ñu daal di weesu euh, te conseil euh, constitutionnel daal di koy euh, proclamer njiital réew mi daal di nay signé décret numéro 2024 32 90 bu 28 novembre 2024 bu fixé bisub altine ñaari fan ci weeru décembre atub 2024 date bi nga xamante ne ni si la ñuy amal ubbité ba session ordinaire bu njëkku ba assemblée nationale bu ñuy doog fal ñu mu daal di koy xamle Euh, ci benn note ba mu def euh, daal di koy euh, biral ba tey ca pencum ndaw ba réew ma lay des yenn yéen gàllaaw élection législative yi daal nañu jublu si récupérer li nga xamante ne moo di ndaamaaru député yu quatorzième législature bi si noonu lañu woowee ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo dal di bokk ci bureau bu dem ngir ñu delloo seeni ay ndaamaaru service kenn si ñoom di Serigne Abdou Mbacké Bara Dolly daal dinay dëggal nag si noonu ne nal woon nañu ko euh, si li ni mel ne woon nañu ko daal di koy euh, laajandi ngir mi delloo ndaamaaram alxames gi la ñu weesu lañu ko jàppaloon bis bu mu ko war a euh, delloo si waaye nee na xaarul sax bisub alxames boobee ci saa si la daal di yónnee oto ba li ni mel la jotoon a xamle moom député sortant bi ba tey si boobu lee xibaar ancien député yu assemblée nationale yi nag dari nañ leen di woo ngir ñu delloo seeni ay ndaamaaru fonction millions te nag euh, ñu ngi ci ñu ngi war a jëfee li ni mel bu yéexee ba yéex alxames bi ñu weesu lañ leen appaloon ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre euh, amul lu gën a normal bu ñu sukkandikoo ci aji Mbergane Kanouté euh, vice présidente groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar si précédente législature bi si nag ñu daal di jëfee mbir mi ni mel ay oto ya nga xamante ne nii nag ñu ngi ñu ko joxoon Euh, weeru mars la si lu suñu fonction euh, si si ordre normal lu mbir yi lañ ñu joxe euh, yooyu les autotests yi lañ ñu ko laajee tamit ki nga xamante ni moo di chef de garage bu assemblée nationale ngi ñu daal di koy delloo député yi nag ñu ngi ko doon xaarandi te nag oto yooyee ñoo ngi nekk di koy jox ki nga xamante ni moo di chef de garage bi mu daal koy réagir moom moomee di aji mbergan kanute bu sukkandikoo ba tey euh, si euh, secrétaire euh, général de l'union pour le développement du Sénégal authentique lépp dañu ko war a mettre en œuvre ngir dal di permettre député yu ñu fal bees ñu dugg ci assemblée nationale si meilleures conditions yi ak tamit bénéficier woo ñoom it seeni ay ndamaaru fonction delloo yooyu les auto dafa dëppoo fonction ba nga xamante ni dañu ko sos te dafa doon lu légal ay membre membres yu bees yu bureau bi eh, dañ leen fal de même que eh, njiital eh, njiit yu commission et des président de groupe ak vice président de groupe ñoom tamit dañuy yitte woowo yooyu les auto de fonction mu daal di ko ca yokk moom ex député bi ñu àddu jëmale ci leneen njiital réew mi Bassirou Diomaye Diakhar fay dina dévoiler benn statue bronze buy représenter Lat ak Fossam Malaw bu municipalité bu Thiès presse bi réalisé ngir ñuy fàttaliku saa su ne euh, boobule héros euh, nationale bi nga xamante ne ni euh, commémoration mort bi mi ngi am 27 octobre meeru Thiès di docteur Babacar Diop moo ko annoncé ci benn réunion coordination ak information njiital réew mi Bassirou Diomaye Diakhar fay dina dem ca diwaanu Thiès fukki fan ak ñaar ci weeru décembre atub 2024 ngir mbir mi ni mel statut bi nag dinañu ko installé ci benn jardin bu ndaw bi nga xamante ni dafay nekk ci diggante place Agora ak euh, auditorium bi euh, di souligner héritage culturel beeg histoire euh, région benn responsable APR bu ñoŋ doon ministre lu bëri moom moo xamle ca observateur ne suñu njiital réew mi woon di Macky Sall dina annoncé bu yàggul dara génnam ba set wecc ci langue ba politique suñu réew mi leen di Sénégal observateur bu recueillir confidence bi nee nag mi ngi recouper xibaar bi si yenn euh, jege ñaalewu suñu njiital euh, réew mi woon certitude bi ba tey euh, bu ñu sukkandikoo ci interlocuteur journal bi moo di Macky Sall du siège ca assemblée nationale suñu njiitu réew mi woon moo nekkoon bopp liste nationale coalition takk Wallu bu jël fukk ak juróom-benni siège ci législative yu 17 novembre bi la ñu dal di weesu démissionné na nag ngir jox place bi ki nga xamante ne ni moo di Abdou Mbow Euh, bu am mérite bu bari ak benn vécu euh, parlementaire euh, bu suñu coalition bi yittewoo ngir mën a rek di mëne débat yi ci hémicycle bi mu xamle ko moom source bu xamal xibaar bi waa observateur suñu njiital réew muy woon beneen di Abdoulaye Wade moom daal nay dem ca diwaanu France jamono ji temb may wax ak yéen mu ngi foofee ca Paris suñu njiitu réew mi woon nag atum 2000 jàpp 2012 mu ngi jógee Sénégal niki àllarba bi la ñu weesu si ndorteelu ngoonaangoon yi jëm foofee ca diwaanu Paris eh, bu ñu sukkandikoo nag eh, si les échos bu biiral xibaar bi jet privé la jëloon ba muy dem Abdoulaye Wade ay atam toll si juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett mi ngi àndoon ak ñaari médecin wami colonel Fall ak docteur bu Ndiaye eh, bu ñu sukkandikoo ba tey si journal boo xam le ni nag xamul nag lu sabab dëgg-dëgg déplacement wu ki nga xamante ne ni moo di Abdoulaye Wade bi waaye relevé na tamit présence ay agent de sécurité bay monsieur Ba ñu naan ko Bro ak ki nga xamante ne ni moom moo di euh, Abdoulaye euh, Dieye euh, leneen si wàllum koom-koom gi di mbirum njëgub ba kilo gerte gi daal dinañ koy fixé si njëgu 305 francs CFA at mile di ab mesure bu ñu jël ni ki talaata gi la ñu weesu ba ñuy amal conseil interministériel bi si wàllum campagne agricole bi ab décision bu ñuy rafetlu bu ñu sukkandikoo ci njiital alliance nationale pour le changement bu ñu sukkandikoo ci ab du Ndiaye ab décision historique euh, bu njëkk historique ku bu njëkk bi lee di Ousmane Sonko la ak euh, ministre bi nga xamante ne ni moom moo yor wàllum agriculture bi di ma Mabouba Diagne euh, fixe njëgu kilo gerte gi ci trois cent cinq francs si lu ñeel nag campagne agricole 2024 2025 béykat yi dinañu ko dal di apprécier mu xamle ko ba tey bu ñu sukkandikoo si moom bile mesure dafa viser soutenir producteurs locaux yi ba noppi wane euh, bëgg-bëgg autorité yi ci tontu ci défi économique euh, yu secteur agricole bi ci contexte bi nga xamante ne ni euh, production gerte gi newul gàññ ci attu ba ren gile mu xam xamle ko moom maire commune bu Kër Maba ba bi te nag lu ñu fixé njëgu gerte gi ci trois cent cinq francs CFA kilo bi ñu yor pouvoir bi dañoo bëgg permettre ñi nga xamante ni ñoo di béykat yi ngeen ñu gën jox valeur valeur seen liggéey te janook euh, jafe-jafe ba économie majeure yi lépp si favoriser stabilité wu euh, marché euh, local people si lu ñeel junneek benneelu saison wu défilé bu mode Elie Elisab ni ki semaine bi la ñu weesu la ñu ko doon organiser ca Riyad foofee ca Arabie Saoudite di mettre en vedette woykat américaine yi di Jennifer Lopez ak Céline Dion boobule nag manif manifestation folklorique euh, jur na jur na coow euh, lu rëy lool ay membre communauté musulmane bi nakar lañu ca am di ñaawlu surtout euh, représentation kaaba gi ngir illuminer boobu les spectacle nga xam ne amul dara yiiw di mettre en lumière lumière ay jigéen yuy défilé di feccoo ak yi ay colko ya nga xamante ne nii colko yu ñaaw la ci gisin jullit yu bëri nag yu différentes nations yi di yuuxu sacrilège buur bi di Mohammed Ben Salman la ñu ca duutandi baaraam uh, bu ñu sukkandikoo si ñoom dafa doon nag ñàkk jox cër suuf su sel sell soosee uh, di Arabie Saoudite uh, jullit yi ci àdduna wërngal këpp waaye itam kërub yàlla gu njëkk googee di Kaaba tàggat yaram làmb lañuy dal daal di àddu Modou Lo jox ndam ci kaw Siteu ci arène nationale ak boobu succès si mbëru Lansar bi chef de file écurie Rock énergie bi daa garde couronne roi des arènes bi Euh, waa nag euh, naka noonu ngir euh, manager général jàmbar production bi Papa Sow benn combat wu leeral daal dina imposé wu ngir dakk coow li nag Papa Sow dafa dal di dal di nag jàpp ni ñaari mbër yi dañoo war a sëggaat dal di bëriwaat bu ñaari mbër yi nag dal di d'accord jàmbaar production pare na ngir organiser waat affiche bi si njeexintalu saison bi ñoo ngi déglu ñaari mbër yi mu proposé ko moom ancien mbëru Fass bi laata mu cee toftal ni du doon guleet ñuy disputer benn komba nag ñaari yoon ci benn saison gisoon nañ fi kaawu Yékini euh, ak Baboy euh, gannaaw coow la juddu ci euh, seen confrontation bi combat bi dañu ko organiser waat ba mu defee ay weer Yékini am ndam ñaari yoon yëpp dasee prox ndool ngir dal di leeral boobule combat ba tax na kon lu tax mu ne suñoo defee ni ni mel ci diggante Modou Lo ak euh, Siteu si njeexintalu saison bi euh, ci nag euh, place Siteu bi manageru jàmbaar bi dafa suggéré def lépp ngir am boobu les revanche te jéem a jël couronne bi ndaxte jamono ji ñi nga xamante ne ni dañ ko bëgg wala ñu ñàkk ko bëgg mooy daal numéro deux arène bi moom la ñu soxla daal dinay tëjee ay kàddoom si dal di xamle ni gannaaw Modou Lo ñaareelu yoon bi mënees na affronter ki nga xam xamante ne ni moom moo di euh, Balla Gaye 2 te bu amee ndam si ko Modou mënees na laal bu néewee ba néew euh, lu tolloog euh, ñetti téeméeri million ci suñuy koppar waruñoo bàyyi Modou Lo mu dem retraite ak couronne bi mu daal di koy xamle moom Papa Sow règlement bi amul coppite CNG daal dinay sanctionné nag financièrement protagoniste yu combat royal bu ñu doon amal dibeer ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru novembre roi des arènes bi Modou Lo bu conservé couronam bi ak Siteu ñàkk nañu lépp lépp lu jéggee juróomi million ci suñuy koppar ngir infraction yu bëri yu ñu dal di def tarkindaa bi nag di Siteu moom moo ëpp la ñu ko dagg ca koppar mbëru jàmm gën boobee ñàkk na lu tollook deux millions sept cent trente mille francs CFA lu ñu koy reproché bokk na si dugal ay bouteilles yu dix litres surplus accompagnant ak excédent wu euh, li nga xamante ne moo di temps d'attente bi manager Max Mbergane moo ko jot Modou Lo moom ngir lu ko ñeel mi ngi ñàkk lu toll ak million millions trente mille francs CFA roi des arènes bi dañu ko sanctionné ngir manquement yu bëri ci réglement bi bokk na ci dugalu bouteille ñu dagg ko ca million deux cent cinquante mille ak surplus d'accompagnant trente mille francs CFA. ba tey rek ca boobule combat ñu koy ndar képpe Siteu mu ñu déclaré ni euh, moom lañu ñu daal di daan euh, si euh, rek làmbam beeg Modou Lo daal dinay contesté boobule ndam bu ñu jox roi des arènes bi Modou Xarañ Lo si avertissement ba ñu nag amal combat royal bu leen doon wutale ni ki dibeer gële ñu daal di weesu les échos jotoon na xam le ni commission règlement beeg discipline CNG manal zoru mbëru jàmm gën bi di Max Mberga Tidiane daal dina koy euh, saisir fi fànn googe déposé nañu recours bi talaata ci suba dépôt bi nag mi ngi ànd ak firndelu vidéo buy wone angle de chute yëpp déposé nañu tamit lu tollook juróomi junne euh, ngir boobule recours dañuy xarandi nag euh, li nga xamante ne ni moom moo di commission gu règlement beeg discipline bi daal di tranché ndaxte gëm nañu bu baax ndamu ba ki nga xamante ne ni moo di tarkindaa gi mu daal koy expliquer laata mu cay dal toftal ni élément yu ñu soumettre day wone ci anam bu leer nañ benn erreur d'appréciation euh, ci ba ñuy amal euh, arbitrage bi recours bi ànd ak benn dossier vidéo détaillé warees nañu ci euh, warees nañu ko examiner ci bis yuy ñëw la cay toppandi nag moom la ñëpp di xaarandi mu nga ko lii lañ leen indiloon tey ci Total Buzz mbégteeg ca waxtu li ñu amoon di leen koy dégg te la moon ko également di ci feggoog Aliou Ba ci côté régie gi di leen ñaanal wi endu jàmm ak di koy sàkku ci yéen jàngeen jëf Thank you.